asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen nuyu nuyu bi gën a sell euh, di am mbégte yëkkati kàddu ci turu le maire Pape ci turu équipe municipale bi mu jiite yëpp ma koy beral nuyoo moom monsieur le maire muy sunu papa di sunu nijaay di sunu lépp jawwale di ko rafetlu xam-xam ak sagesse am di ko ñaanal yàlla na ko sunu borom dooleel mooy wér mébét yéene ko ci xonqor yi lépp mu fekke ko ndax xonqor rek moo ko tax a jóg moo ko ñam loolu weesoo maa ngi nuyu mon ami mon frère Mouhamadou Lamine Gueye deuxième adjoint au maire di rafetlu taxawaayam ci liggéey bi di ko mosawu ci coono yi i xamante ni aussi ñu koy def rawatina ambulance bi. mangi Dr nuyu docteur Sitor Lo ñu dalal fii ci centre de santé Khombole Je ma ko nuyoo toute l'équipe médicale qui koy accompagner également notre ami frère conseiller municipal conseiller Diop président du comité de développement de la santé et collaborateur de ñu ci nous venons représentant l'association de jeunes à l'association sportive et culturelle Nous venons le représentant de la zone 6 de Khombole Nous ngi la famille de Mohamed Ali Diaye Nous suñu yaay Aïda Cissé de délégation mine. Nous avons fi ak suñu sœur notre frère Ali Diaye mais ñu doon nuyu aussi suñu Baye Moussa Ndiaye moom mi nekk Italie nga xamante ni jour bi ñu jël ambulance bi di ko chargé li yaramam di sutante yëpp bàyyi na ay yitteel ànd ak Mouhamed ñëw ba ci site bi loolu rek am na lu ñu firnde ci yéene ñi nga xamante ni am na ko ci doomam ak yéene ñi nga xamante ni am na ko ci xobal ñu ngi nuyu les conseillers municipaux yi fi teew.

ñoom Basiirou Gueye suñu gan yi fi nekk yëpp ñoom naan la jaay ñu leen di beral ñëw di leen jox seen wàccuwaay tey am na lu mbégte lool ñoom toog fii centre de santé bi pour procéder à la remise officielle bu ambulance Ali Ndiaye mooy le centre de santé de Khombole ko ci municipalité de Khombole waaye wala ñu xuus ci loolu dañuy beral cant ak ngërëm. docteur Sitor Ndour ak équipe bi mu àndal yëpp ndax ku ne xam na ne danoo jógee ci pandémie bu metti bu diis bu sonal askan bi ñu jaxase réew yi waaye fii ci xombol dañu gis le docteur ak équipe bi ko accompagne yëpp am fi taxawaay bu mucc ayib qui multiplient pour lutter contre la pandémie Covid-19 ñu ngi doon jot rapport yi di def ñu ngi doon jot information yi de partout je crois que ci Sénégal xombal ak centre de santé xombal bokk na ci centre de santé yi ngir rafetlu seen taxawaay donc loolu

bañ na ko ba ñun ci suñu fond de dotation li muy néew néew lu bon bon 35 ba 40 pour cent des ressources da koy ñëw jagleel ko hôpital mais du ñu yem foofu xool lu ñu am ci suñu budget aussi selon les besoins ñoom ci taxawaay bu mat loolu taxaw na ko ci covid bi taxaw na ko ci après covid bi taxaw na ko ci avant covid bi wax ko sax sa jël benn kàddu ñun bi ñuy ñëw en tant municipal daan na fi fekk municipalité bi yore centre de santé bi ay arriéré ci fond dotation lu mat benn wala ñaari at loolu lépp dawoon na